أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu borom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko comme nin ko baaxoo def noo ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi ba tey nu ngi ci suratu nisa bi iznillahi tabaraka wa taala ñuy jël ñaari aaya aaya 148 aaya 149 ñaari aaya yi nekk sunu kanam sunu borom mu ngi ci jàngal ñetti mbir bi ci njëkk mooy xurmatul jahri bi suu wa sirri bihi wa kadalika fala yahilu li muminin wala mumina an yantiqa bima yasuu ila alqulub wannufus illa fi xaalati shakwa wa izhaari zulmi ila gayra mbokki jullit yi nun ñépp nanu ànd xam ne dafa araam ci ab jullit muy yëkkati kàddu yu ñaaw wax ju bon mu koy yelu mu koy yelu walla mu koy wax ci kaw ñaar yooyu benn baaxu ci su dee biral mooy wax ci kaw yàlla bëggul ñuy biral wax ju bon bu dee ci asir mooy secret wax ko ndànk yàlla bëggu ko kon looloo tax maadaama wax wax ju bon jëme ko kaw wala jëme ko suuf yàlla bëggu ko te yàlla ab jullit lay waxal bu gëm kon lu war ab jullit mooy muy contrôler langage am ndax lépp loo wax ëllëg yowmal xiyaam dinañ la laaj lu sax nga wax ko benn boroom xam-xam dafa bind ne nit buy dugg ci lislaam benn baat la ci duggee buy génn ci lislaam benn baat la ciy génnee sëy benn baat benn baat lañ koy takkee moom lañ koy tasee maanaam ci lépp benn baat la nit dina wax benn baat ñu dugal ko safara sànni ko ci teen boo xam ne dina xóot juróom ñaar fukki junni at kon moo tax mu ne ñuy xool baat yi mu ne bi kalima ci benn baat tudd xolu fil islam bi kalima ñooñu ñooñu yàlla waxoon génn ngeen ci islam lu ñu def lu ñu wax yàlla leen wala qad qaalu kalimatal kufr wax nañ benn baat bu leen génne kon moo tax baat yi sax dafa war a kon dañ ko war di contrôler yonent bi doon na wax saxaaba bi xanaa xamoo li ëpp li dugal nit ñi safara mooy seeni làmmiñ seeni mbubu ci làmmiñ surtout tey nag ci sunu jamono nit ñi ni ñu boyalee seeni làmmiñ ak seeni a seeni xalima ci bind ak wax da ngay gis journaliste buy wax wala buy bind wala lu ko neex lay def moom yoonam ci ëllëg yowmal xiyaam ne dinañ ko woo laaj ko li nga wax wala li nga bind wala koo xam ne moom li muy wax moom tamit lu ci neex ay nit lay xool wala wala wala wala loolu ab jullit da koy waram mooy tëndi ko sunu borom ne buggul wax ju bon mu jëm kaw waaye buggul tamit mu jëm suuf mu ne kazalik fala yahillu li muminin wala mumina warul jaaduwul ci jullit bu góor ak jullit bu jigéen muy wax benn baat bu ñaaw jëmale ko ci ay xol wala ay bakkan daganul ci ku gëm yàlla ku góor daganul ci ku gëm yàlla ku jigéen muy génne benn kàddu bu ñaaw di ko jëme ci ay jullit yu góor wala ay jullit yu jigéen wala mu adressé ko ay xol wala ay bakkan mu ne illaa fi xaalati shakwa lu dul nag ci njàmbat ci njàmbat dañ laa def lu bon wala ñu wax la lu bon nga dem ci kilifa gi fi nekk moo xam buur la wala nga koy jàmbat liñ la wax nga répété waat jaar fu bon fi waa ji jaar xam nga wax nga lu bon kuy répété waat lu bon wax na lu bon waaye bu fekkee dañ laa tooñ am nga droit répété waat lañ la wax fekkee da ngay jàmbat xoolal ñun ñun suñu yoon ci loolu waa ji daf lay saaga benn saaga nga saaga ko ñaata saaga fukki saaga tegale ko ko yàlla nee na buggul lu bon abubakarin saddiq toogoon na ci wetu yonente bi alayhi salaam benn yéeféer ñëw saaga abubakar saaga yu tàng abubakar noppi yonente bi toog waa ji di saaga abubakar noppi waa ji di saaga abubakar noppi ba ci yàgg saaga yi metti ko ndax dafa bëri te tegaloo abubakar fayu ak yonente bi jóg dem yoonam ah abubakar jóg topp ñu ne waaye yonente yaa rasulallah yow waa ji saaga na ma ay yoon yu bëree bëri ma noppi ma fayu rek nga jóg mu ne bi nga fayoo seytaane dafa taxaw bi nga noppee yàlla mu ngi ko ko doon delloo bi nga fayoo rek seytaane daa taxaw man fu seytaane taxaw duma fa toog man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon wala fi dinañ wax ne wax ju bon dëkkul fa mu jëm waaye fa mu jóge wala dëgg kon bu la wax ju bon bu mu tax nit di tàng wala ngay déborder wala nga dem ba wax loo xam ne waroo koo wax ki la wax lu bon bàyyi koog yàlla waaw ki la wax lu bon benn waaye dafa ñëw fekk benn nit ku baax mu saak ko ndey yow de dinaa nangam sa ndey mu ne ko ah loolu nga wax day wax ju ñaaw dong la parce que sama ndey faatu na xaw ma foo koy jàppatee ba koy nangam ndeysaan loolu la ko tontu xoolal est-ce que loolu moo war a nekk tontu ci ñun non ci ñun yat nga waroon jël parce que waa ji def la sax mais da ko ne am nga ñaar de def nga ñaar bu njëkk bi mooy fen nga sama yaay mu nota ko nangam génn na àdduna beneen bi mooy wax nga wax ji bon bi am na bindal nañ la bàkkaar ndeysaan xoolal kooku moom noonu la déggee jamonoom noonu la déggee àddina kon nit ab jullit dafa war a góor góorlu ba li koy yàlla di wax yàlla lim ñuy jàngal mbokk yi léeg-léeg dañuy wax ci dars yi ne ay yi ñuy jàng du ay lépp ak ay léppoon 31 décembre dama doon def benn thème ci guddi kayfa nataxallaq bi axlaaqi rasul naka la ñuy def ba am jikko yonent naka la ñuy def ba jikko jikko yonent bi mbokk yi alxuraan bii moo defaroon yonent bi yonent bi ci alxuraan bii la defaree ñoom Aboubacar ñoom Ousmane ñoom Ali ñoom Bilal ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom yonent bi lii la leen defaree wallahi nun mënuñu defaru sans lii amuñu fenn fu nu mun a dem kenn ku nu mun a yar lu dul ñu jéem lii yàlla dinu wax ni ci alxuraan aaya yii ñu koy jéem a dund loolu dong moo nuy defar dañuy sonal suñu bopp fu neex nan dem ku neex nanu faral ku neex nan àndal ku neex nan toppandoo mbooloo mu woote nan dem du nu defaru ah waaw boo feebaree ñu ne la dama hôpital faju nga topp mécanicien yi foo ñëw ne ko sama biir bi day métti sama biir bi day daw sama bopp bi day métti di nga wér est-ce que di nga wér ah ah voilà waaye boo demee hôpital nga dem ci docteur yi ñi nga xam ne loolu lañ jàngi woon léegi ñu faj la ñun tamit danoo feebar bu fekkee danoo bëgg faju suñu jikko yi dafa yàqu alxuraan rek moo ko mun defar alxuraan bi wax naa leen ba sonn ñëwul pour ñu koy takk di ko jàmb di ko naan wala di ko takk ci suñu dënn yi wala di ko def benn téere bu ñuy tiitaroo teg ko ci kaw ah comme démb maa ngi gis barki démb fenn yëpp maa ngi gis ci facebook bi ñu naan akbaru mushafin fil aalam téere bi nga alxuraan bi gën a ngand ci àdduna moo ngi nii kutiba ala marmar wa kaza wa kaza loolu amul benn importance téere alxuraan a ngi nii kaamil kaamil bi or la bind yi or la che të të të amul benn njëriñ amul njëriñ de xam nga lu am njëriñ ñu dund kaamil bi ñu dund bind yi li yàlla dina wax du ay lépp lii la yàlla waxoon yonent bi rek yonent bi baax yonent bi wax ko saxaaba yi saxaaba yi baax kon ñun bu ñu bëggee baax yàlla nee na bëgguma koy wax wax ju bon dégg nga loolu lan moo la war ngay contrôler sa bopp yenn saa yi da mën nga tarxiis mais ngay contrôler wu yàlla buggul ku wax wax bu bon buggul nga wax ko ci kaw buggul nga wax ko ci suuf kon nga jéem a wax wax ju rafet nga jéem a def lu rafet loolu donc moo mooy wax bi sunu borom ne jalla jalaaluhu illa fi xaalati shakwa wa izhaari zulmi wala ngay feeñal dañ la tooñ nga koy feeñal nga répété lu bon li la waa ji wax amul leneen ñaari mbir yooyu rek lañu maye ab julit wax wax ju bon dañ la tooñ nga dem di jàmbat wala ngay leeral niñ la tooñee nga répété waat yu bon yi la waa ji wax su boobaa lislaam dina la ko jéggal ñaareel mbokk yi istihbaab fiilil xayr dañoo bëgg jullit di def lu baax moo xam da nga ko def ci kaw feeñal ko moo xam da nga ko nëbb lu baax soo ko feeñalee baax na soo ko nëbbee baax na laa yanqus ajr ajruhu soo ko defee nga nëbb ko sa tiyaaba du wàññeeku soo ko defee nga feeñal ko sa tiyaaba du wàññeeku waaw lu baax moom yàlla daf ko bëgg loolu ngeen dégg moo tax ngeen dégg ñu ne yàlla wax ci alquran fastabiqul xayraat xoola fa waxul fastabiqul xayraat xayraat kon day nekk benn dana njëkkante leen yu baax yi yu baax yi dañoo bëri yàlla njëkkante leen ko waaye lu doy waar mooy boroom xam-xam bi nee na alxayru kasir waaye wa qalilun failuhu lu baax dafa bëri de waaye ñi koy def ñoo tuuti benn sëriñ dafa amoon parti politique sëriñ xalif xalif moom parti politique mu ne dafa bëgg islamiser Sénégal mu yebal taalibe yi mu ne dem leen ngeen ngeen campagne benn taalibe ñëw ci moom ne ko sëriñ bi danañ gañe ñun ñooy gañe sëriñ bi xool ko ne ko foo ko teg foo ko teg mu ne ko ñu baax ñi ci dëkk bi ñëpp ñun lañu àndal mu ne ko kon duñ gañe mu ne lu tax mu ne ñu baax ñi dañoo tuuti dégg nga kooku wax na dëgg wala waxul dëgg ñu baax ñi dañoo tuuti lu baax dafa bëri mais tuuti ñoo koy def xooleen julli yow fajar dem jàkk baax na wala baaxul ah ban jàkk ngeen gis muy fees fajar est-ce que mos ngeen gis jàkk ju fees fajar comme bisu tabaski wala korite ku dëkk koñ boobu na yëkkati loxoom jàkk ju fees comme ni ñuy jullee vendredi ku dëkk koñ boobu foofu ah non gars yi xanaa dëkk yi ngeen dikk dëkk ay chrétien ñoo fa dëkk ak ay yëfu pourtant loolu war na mën a nekk lu tax war na mën a nekk c'est parce que ay jullit ñoo dëkk Sénégal mais xoolal jumaa ji du fees jàkka ji du fees suba du fees tisba du fees du fees du fees jàkk joo xam ne dañoo gaare oto yi droité gars yi di julli fajar comme ni ñuy jullee suba di julli suba comme ni ñuy jullee vendredi allahu akbar loolu nag moom mooy lislaam te seeg fekk delluwaatuñu foofu ah yàlla yaram bi du mos a teggee ko suñu kaw loolu mooy diine diine mooy ñuy julli fajar comme ni ñuy jullee vendredi comme ni ñuy jullee tabas comme ni ñuy jullee korité nga xam ne oto yi dañuy ñëw du ñu mën a romb loolu mooy lu baax li ñi sant fastabiqul xayraat njëkkante leen lu baax yi alxayru kasir wa qalilun failuhu te yàlla nee na wa ma tafalu min xayrin yaalamuhu llah lépp lu ngeen mën a def ci lu baax ci lu baax lu mu toll lu même lu mu tuuti tuuti bu dee dërëm yàlla nee na xam naa ko lu tax yàlla wax na nañ def lu baax bare duñ ko def duñ njëkkante lu baax duñ njëkkante ah istihbaabu fiilul xayr dañoo sopp ñu def lu baax moo xam lu baax loolu dañ ko feeñal ci kaw mën nga def lu baax ci kaw mën nga def lu baax ci suuf waaye diggante def lu baax ci kaw ak def lu baax ci suuf ban moo ëpp tiyaaba nga def lu baax ba pare fekk ci suuf nga ko def kenn yëgu ko ndeysaan waaye na nga yëg ne ñoom ñaar ñëpp laa yanqus ajruhu bil jëhri wala yaziduhu bis sirri sa tiyaaba yi ngay am du wàññeeku mukk boo defee lu baax ci kaw nga ko def wala ci suuf ñetteel li ñuy jëlee ci aaya yi ñu war a jàng istihbaab al afu anil mu'min di bale di bale di baalaate al afu di jéggalaate mbokk yi ñaata yoon lañ jàng dund yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam ñu ne moom da doon da doon jéggale ñaata yoon ñu bëri dañu yaakaar ne suñ ne yonent bi fi gën yaakaar ne yàlla da koo faral rek def ko mu gën déedéet yàlla da koo tànn ba pare li ko yàlla tànn mu incarné ko wane ko li ko yàlla defaree ba pare moom li ko yàlla tànn wane ko ne ko bismillah moom dafa ñëw dund loolu ñi mu yaroon aussi nekk ci wetam gis ni mu mel jéem a mel ni moom jeex na loolu kese la amul tricher yoon wi nii la noonu la un plus un mooy égal deux amul plongée amul naaw waaw déedéet géej gi dañ la cee sóob rek ne foog nga fay ko foog nga fay ko doo seey doo jaar ci suuf génn doo naaw ngelaw li loolu moom mooy diini islaam loolu lañ ñu sant mbokk jullit yi mooy di jéggale di jéllale ab jullit day jéggale dañ lay tooñ nga baale dañ lay tooñ sax nga jéggale sa kër yaag say doom yaag say dëkkandoo yaag say mbokk yaag fi ngay liggéey yaag yaag addina bi mais jéggale yonent bi da doon jéggale xoolal yonent li gën a rëy ci histoire li mu def mooy mu juddoo màkk màgge màkk yaroo fa ñu génne ko ba mu koy bañ koy génne am na ñeent fukki at ne ko ci biti jour bañ koy génne dañ ko bëggoon rey ay nit la ñu jël jox leen ay jaasi ne leen xaar leen ko bu génnee rey leen ko yàlla ne ko bul fi fanaan ndax dañ la bëgg a rey mu génn bi mu génnee gars yi bàyyiwuñ ko dañ koo topp neexal ku ko indi muy dund wala mu dee dinañ la may téeméeri gëléem yàlla rëcculoo ko mu dem ba am doole ñibbisi fañ ko génne woon fañ ko bëggoon rey fañ ko neexale fañ neen neexale ku ko indi hayyan aw mayitan mi et ibil téeméeri gëléem ku ko indi muy dund wala dee ña ko doon def loolu mu jàpp leen ñoom ñëpp taxaw leen ci benn terrain allahu akbar gars yi wër leen mu wër nii gis gaa yi gaa yaa ngi nii taxaw kenn par kenn ñu ngi nii ponkal yi ko bëggoon rey ngi nii génne ko dëkk bi ndeysaan mu dugg ci kaaba gi toj xërëm yi ba pare bilaal yéeg ci kaw nodd ba gaa yi xam ne sirk jeex na mu tourné ci ñoom nag ne leen maza tazunnuuna anni faa'ilun bikumul yawm tey lu ngeen foog laa leen di def gaa yi ne ah yow de ku baax nga anta axun karim wabnu axin karim mbokk mu baax nga fi nga jógee tamit baax nañ mu ne leen dem leen baal naa leen kii doon yor caabi kaaba gi Usmaan ibnu Talha Ali dafa waññaar loxo bi mu bëgg ko damm nangu caabi ji ko bokkaale kat bu bon bi nga yor caabi kaaba gi yéen tamit ne ko déet delloo ko ko kii mooy yor caabi ji moog ay njabootam ba yowmal xiyaamati tëtëtët waa ji daal di tuub ba fii may wax ak yéen ay sëtam ñoo yor caabi kaaba gi waaw xoola kii bu doon ñun fii kenn la da nga naan ko pes ko gaa yi jàpp leen ko ñu parkaat ko ñeneen ñëpp nga ut douze coups tulli seen bopp yi gaa yi xoola yonent ndeysaan allahu akbar loxo mi mus ci def lu bon nit ñëw na ci jàkkaam ji mu nekk daat fay saw ci jàkk yonent gaa yi ku demoon ba Tuubaa tey nga saw fa ku demoon ba Tiwaawaan nga saw fa ku demoon ci Njaasaan nga saw fa ku demoon Yoof saw fa li ñu lay def nit saw ci jàkk yi gën jàkk yooyu gaa yi jóg jël ay jaasi bu ko rey yonent ne bàyyi leen jàmbur mu saw sawam ñu bàyyi waaji waaji taxaw génne waaye yàlla am di joxoñ di saw naan nii gaa yi waaw di saw saw maa tey naan nii saxaaba yi di bëgg a dee tim ne leen ah ay jàmbur de waa ji taxaw di saw cururururur ba pare yëngal waa yàlla dugal ci tubéyam toog yonent bi ne sotti leen ci sawu arab bi benn baagu ndox ñu sotti mu ne ko sawaay place yu mel nii kenn waru fee saw fii ay néegu yàlla la waa ji ne allahuma arhamna wala tarham allahuma warhamni warham muhammada wala tarham maana ahad wala encore fi mu duggati yàlla nag ma yërëm maa ngi muhammad mii ndax ñun ñaar rek ñoo fi baax ñeneen ñi bëgg maa rey bul baal kenn tay ñoo ci ne ko sawaay déet waay dayaqta alwasaata yaatal nga xatal nga lu yaatu xatal nga lu yaatu mu ne yonent bi lan moo yaatu yonent bi ne ko yërmande yàlla gaa yi dañoo mer rek ndax li nga def fa rafetul kon ñaanal leen yërmande gi ñoom tamit ñu bokk ci te waajoo ñu bëri dañ naan ab ab yéefi déedéet ab jullit la hadis bi waxul waa ji yéeféer la de waa ji dafa ñëwoon ci yonent bi borom xam-xam yu doon fii hadis bi ñu ne ñetti mbir la ko yonent bi sëbe sëbe na ko ci feebar ndax kuy saw ñu dóor la saw yi day arrêté yonent bi sëbe na ko tax na ba saw yi tasaaroowal ci jàkk ji yonent bi sëbe na ko duggul safara kuy saw ci jàkk ku saw ci jàkk yonent bi ñu rey la foo jëm dat safara nga jëm waaye yonent bi sëbe na waa ji ci loolu yëpp kon nit day baalaati yonent bi alayhi salaatu wasalaam nit ñu bëree bëri ci baal la leen dugale ci lislaam benn waaye fekk na ko ñu jee ñu jihaati ba sonn deltu ginnaaw nekk ci keppaar yi di nelaw ku nekk sóonoo sa jaas yi benn yéeféer ñëw rek am occasion rek ne caraas jaas yi yonent bi rek yonent bi jug taxaw rek mu xàcc ne ko man yam na ko amin nii ku la mën a musal tey yonent bi ne ko allah waa ji gërës gësam tiit jaas ji wala yonent bi ne par jaas ji ne ko man yam na ko ni mu ne ko jéggal ma jéggal ma kay yow kay jéggal ma rek su dina ko demal gis nga waajooju bi mu ñibbee dafa dem këram ne ki gën ci nit ñi laa gis tey di wax di wax gars yi ne ko kookoy mu xam mu ne kii li mu wax dëgg la noonu la buubee waa këram ñëw tuub kon dañuy jàng tey dars jéggalaate al afu jéggale rawatina nag anil mu'min way gëm yàlla isla budda minhu bi suu mbokk yi amul kenn ci ñun ku set amul kenn ci ñun kurul tooñ amul kenn ci ñun kurul tarxiis ni nga bëggee boo tarxiisee nga tooñ nit mu baal la noonu nga war a nekkee kuy baalaate wa man yaafu yaafu llahu anhu kuy baale yàlla dalay baal kuy baalaate yàlla dalay baal benn waaye da doon leble mu ne xaleem yi ku ngeen dem ku fay indi leen ku fayul bàyyi leen ko bi mu dee yàlla ne ko da nga doon jaay ne da ngaa baax di nga xam ne maa la gën a baax loolu la olof yi naan ku lebal yàlla ker lu mu lay fay da ngaa lebale ker ker xam ngeen ker daa di ker ku ni ker tuubri da ngaa lebale ker yawmal xiyaam yàlla guddi la lay fay allahu akbar mooy da nga dul gis naaj sax kon yàlla moo baax kon gars yi nañuy baalaat kan mu bëgg fi yàlla baal del baale kuy baale yàlla neen dala ma lay baal kon lii mooy suñu dars tey bismillahi arrahmani arrahim laa yuhibbu allahu aljahra bisuu'i min alqawli illa man zulim wa kaana allahu samian alima إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا sunu borom ne laa yuhibbu llahu jahra bisuu'i min alqawl laa yuhibbu bëggul moom yàlla gërëmul aljahra feeñal bisuu'i lu ñaaw rawatina nag bu nekkee min alqawli ci ay wax aaya bi yàlla ne bëgguma kuy feeñal wax ju ñaaw nga bàyyi ba nit dee nga ñëw jël kaamil bi naan aoudu billahi min ashaytani rajim waajaa ngi dee mu ngi ci morgue bi ñu koy sang nga naan ko laa yuhibbu llahu aljahra bisu'i min alqawl lan la koy jëriñ bi muy dund lañ ko waxoon yàlla bëggul wax ju bon léegi dee na moo tax alxuraan du pour ku dee pour ñun ñi dund nii la pour ñu jël ko dund ko yàlla bëggul wax ju bon nga bàyyi ba waa ji de nga yónni ko jaar ngay lire rapport bi mu naan ko yow de da nga doon wax lu bon te yàlla bëggu ko mu naan wëyaay kii mi ngi may àtte wëy mu ngi may jugé yàlla bëggul wax ju bon mu jëm kaw waaye mbokk yi ndax yàlla wax ju bon rek la bëggul mu jëm kaw wax kese la wax mais ak jëf yi ndax di jëf jëf bon jëf yi bon moom mooy tax nit wax ko nga am pas-pas bi ci sa xol mooy tax nga génne ko ci sa gémmiñ saa yu ko fas bi xol bi fasee gëm ko soo moytuwul moytuwoo moytuwoo bisa ngi ñëw loolu nga fas lu bon ci sa xol da nga koy génne wax ko ne ko pat ci biti moo tax borom bi ne man yàlla jalla jalaaluhu bëgguma gërëmuma benn yoon aljahra feeñal bi suu i ci lu ñaaw ah maa yasuu ila man qiila fiihi aw filu fiihi aw filu bihi ñaawal jëme kenn ci ay wax wala ay jëf yàlla bëgg ko mu ne illa man zulima ndare ku ñu tooñ fekkee dañ laa tooñ nga dem di jàmbat tooñ giñ la tooñ wala nga koy nettaliwaat man diw li ma def fii la ma fekk daggal ma ay saaga ndey yoo xam ne wala ma wax ma wax joo xam ne su boobaa yow day mën ngaa répété waat lu ñaaw liñ la wax waaye am na ñoo xam ne bu doon ñoom sax du ñu du ñu jaaraat fi waa ji jaar mais danañ junj wala ñu adressé ay termes yoo xam ne ki ñu bëgg a waxal dana comprendre ne kii kat waa ji mu doon waxal da koo saaga wala daf maa wax wax joo xam ne teggin wut wala daf maa wax wax joo xam ne yaruwut loolu moo war a tax ñu war a yar suñu bopp yar suñuy làmmiñ ba bu ñuy wax ñu xam lu ñuy wax ñu xam ku ñuy waxal aussi li ma doon wax démb gaa yi ma ne samedi ba lay passé xaw ma waaw comme dañoo amoon conférence dimanche dañoo waroon garder baas yi ñu dem fanaani fa samedi bi ci guddi waaye am na booy yoo xam ne ñu ngi dëkk ca koñ ba ñëw taxaw ci wetu comme dafa dafa leer ah ñu taxaw ci benn côté baas bi di saaga rek léegi mooy li sénégalais yi xewal xale yi luñ xewal ndayam ndayam paas ma ndayam paas nga ma ndayam teg naa ko dënn ndayam mbëkk naa ko bal bi dugg na ndayam loolu mooy lan soo doon wax may ma naan sax waaye may ma ndayam waayow yow doom maa ndayam ñaan naa la ndayam loolu mooy lan léegi loolu la dëkk bi tàmm ndayam ndayam ndayam ndayam bu dul jeex mais loolu du diine loolu yaradiku la loolu ñàkk yar dëgg la wala di wax ak sa papa xoolal ay paa moo fi jeex léegi naa la boole ak sa papa xoolal demal ay paa moo fi jeex léegi ay mère ay yaay yooyu yooyu ñoo fi jeex léegi kon lu lu fi lu fi xew su fekkee wax sa papa papa wala ay baay yooyu jeex na léegi lu xew ah en tout cas ñu ngi jëm foo xam ne ku yëbu góorgóorlu sa bopp ak sa njaboot man de li ma gis tiisal na ma trop am na ay doom yu ndaw yenn saa yi dinaa leen xool nit ñi après su ma fi nekkatulee instant yi sax maa ngi fi maa ngi góorgóorloo ak ñoom maa ngi bëri kon ñii bu ñu bu ñu màggetee ba gisuñu ma wala ñoom ñu am ay doom seeni sët ah ku nekk war na tiit Sénégal avec li ngeen di dégg ci dëkk bi mbon ak yàqute li ngeen di teg seen bët ku nekk gis na li ñuy wax ku toog fii rek gëm yàlla di seede dëgg li may wax ni teg nga ci bët waaw fu ñu jëm kon fu ñu jëm ku nekk war na laaj loolu fan lañ jëm fu ñu jëm bu fekkoon ne pax bi sax ñii dañuy gas ñii di suul waaye pax bi léegi ñëppay gas ñëppay gas pour mu xóot fu ñu jëm yar na xalaat sunu boroom jalla jalaaluhu wa azala wa azza kamaaluhu mu ne wa kaana allahu yàlla mësta dañ samian di dégg aliman di xam waaw yàlla mësta dañ te du mësta dañ maadaama yàlla mi ngi dégg te xam na afala yattaqi jaam bi lu ko teree ragal yàlla lu tax jaam bi du ragal yàlla comme yàlla xam nay mbiram yàlla nga koy dégg fala yaasi bi fi'li suu wala bi qawlihi jaam bi war na rus bañ a moy ci wax wala jëf maadaama yàlla jalla jalaaluhu nee nañu maa ngi leen di dégg maa ngi leen di gis xam naa li ngeen di def maa ngi leen di dégg xam naa li ngeen di def maa ngi leen di dégg xam naa li ngeen di wax xam naa li ngeen di jëf wa kaana allahu samian aliman yàlla mësta deñ di xam samian di dégg lépp lu jaam ñi def wax ak wala ñu jëf ko aliman di xam seeni jëf moom jalla jalaaluhu sunu borom waaw wa ma zaala te wala yazaal yàlla du deñ te du musa deñ suñuy jëf yépp suñuy wax yépp dégg na ko waaye ku ko xam la moom sunu borom subhanahu wa taala borom bi nee na li leen di wan loolu in tubdu su ngeen feeñalee xayran yiw aw tuxfuuhu wala ngeen nëbb ko aw taafu ansu wala ngeen jéggale lu bon fa inna allaha naka yàlla kaana mustadañ afuwan di jéggale qadiran di ko aju dogal wa in tubdu xayran bu ngeen feeñalee lu baax gis nga kon sunu borom lu mu bëgg mooy jëf-jëf ju baax fi sirri awil alan moo xam dafa feeñ moo xam dafa nëbb sunu borom loolu la bëgg ñuy fee ñuy jëf jëf yu baax moo xam dañ ko nëbb moo xam dañ ko feeñal luñ ci mën a def ñëw na ci xadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ma naqasa maalin min sadaqa wala zaada allahu abdan bi afwin illa izzan wa man tawaadaa lillah rafaahu yonent bi nee na sarax du wàññi alal sarax du wàññi alal ku am alal di saraxe sarax bi ngay saraxe du wàññi alal ji nee na benn jaam du jéllale di jéggale lu dul yàlla da koy yokk rek muy tedd mu ne képp ku suufe suufe lu yàlla yëkkati la ci kaw kon jéggale jéllale def lu baax feeñal ko wala nga nëbb ko sunu borom da ko bëgg in tubdu xayran bu ngeen feeñalee lu baax tuzhiru ngeen feeñal ko wala tuxfu nëbbu leen ko lu baax li da ngeen koo feeñal ci kaw ba ñépp gis ko wala ñeneen ñi ñoom feeñaluñu waaye dañoo nëbb xam ngeen ne ci diina ji jàng nañ am ñoo xam dañ doon feeñal seen i jëf am ñoo xam dañuy nëbb lu mel ni sarax lu mel ni maye lu mel ni ndimbal ah même jaamu yàlla yi am na ñoo xam ne seen jaamu yàlla sax dañ koy nëbb ba mu des farata yi nga xam ne dafa war a feeñ ci biti waaye am na ci jaamu yàlla yoo xam ne dañoo mën a wonewu dañoo mën a puukare dañoo mën a dañoo mën a fu nga puukare weesuwul yow ngay jaamu yàlla nee nga da ngay jaamu yàlla nga dem jënd ay nag wooyu télévision ah ñu naan waa ji deux cent deux millions nag la jënd léegi ku mu ko jëndal bu fekkee yàlla kese nga ko jënde woon jarul wax yàlla mi ngi ko jëndal xam na ko wala dafa am benn waay bu tabaxoon jàkk bi mu tabaxee jàkk ji mu ne bind leen ci sama tur pour ñu xam ne maa ko tabax ndeke am na benn jigéen bu fa romboon ndeysaan daal ci daal di saraxe ci jaake ci moom waa ji mu tëdd guddi mu gis tableau bi mu defaroon tableau bi ak place bi mu raaxoon ne nañ fi daaj tableau bi ñu bind ci turam mu gis ñu bind ci turu ndaw si mu ne waay mu yeew mu ne lii nu mu nekkee ma daw sama jàkk ñu def ci turu keneen mu ñëw xool fi ñu bind tur yi mu gis turam ma fa nekk mais moom bi mu tëddee guddi gént nu mu géntoon tur ndaw saa fa nekk mu tëddaat guddi mu gént gisaat malaaka yi jógee kaw asamaan wàcc ñëw dugal pince fi mu def turam dajji ko teg beneen tableau bu bees daaj moo ngi taxaw di xool mu bàyyi bañ dem mu ñëw liir mu gis turu ndaw si mu ne mais mu bàyyi ba fajar jot mu julli ba mu naaj mu dem kër ndaw si mu woolu ko ndaw si ñëw mu ne ko yow yow la moo tax ñu ne nañ jël sa tur gi di ko def sama jàkka wi ndaw si ne ko ah lu ma ci xam dañ ci def sama tur mu ne man dama tudd ay guddi ngi nii ñetti guddi muy gis ay malaaka jóge kaw asamaan wàcc daaj gi sama tur daaj ci def sa tur daaj ko yow loo def ci jàkka ji doo si ne ah man de defuma ci dara benn bis daal romboon naa fii ma yoroon juróomi dërëm sànni ko ci mbalaan mi dem mu daal ne wax nga dëgg mu mu daal di woo ñi mu waxoon kaay leen ngeen defi sama tur mu ne def leen ci turu ndaw si jàkka ji ñu tuddee ko ndaw si mu ne ko yow yaa ko moom xoolal moom li mu def ak li ndaw si def lan moo ëpp ah moom li mu def moo ëpp waaye moom dafa deful ndaw si doon def ngir yàlla loolu moo tax loo def yàlla xoolul quantité bi ndax dafa bëri ay saaku la wala ay camion la xoolal tey nit ñi ay camion waaw maa indi camion yi amul benn njëriñ perte nga maa indi ceeb bi perte nga waaw lu tax waxuñu sama tur mos naa dégg ci rajo bi benn sëriñ mu ne wax leen daay réeb mais ñi indi rek di indi addiya rek ñi indiwul bu leen kenn tudd mooy lan xanaa nekkul ngir yàlla wala léegi force la mbir jaamu yàlla dafa war a nekk ngir yàlla warul nekk ngir fuukare warul nekk ngir gis leen ma warul nekk ngir man mii la na nekk ngir yàlla boo bëggee ti yàlla ndax ku deful ngir yàlla da ngay perte moo tax su fekkee da nga ko def feeñal su fekkee da nga ko def nëbb wala ngay ngay jég nga nëbb ko aw taafu wala ngeen di jëlale ani suu ngeen di jëlalul woon di ko jéggale ngir yàlla nag na tax laatu aaxisu bihi ki la ko def bul ko ko jàppee lu ci mën a nekk na ngeen yëg ne fa inna allaha naka yàlla moom jalla jalaaluhu sunu boroom kaana masta dañ te du dañ afuwan qadiran di jéggale te dikk ko mën nit mën ko tooñ nit mën ko moy nit mën a def lépp lu bon sunu borom subhanahu wa taala daal di koy baal jàngeen hadis bi waa ji nga xam ne bi mu dekkee yowmal xiyaam dafa gis 99 registre registre bu nekk soo xoolee sa bët guddaay bi mooy fa sa bët yam registre yowmal xiyaam waa ji registre am yooyu 99 la registre registre bu ci nekk gudd na guddaay boo xam ne fi bëtam yam fa la registre bi yam benn tiyaaba amu ci yàlla ne ko ku def lii mu ne ko man léegi nag loo ci xalaat ah alhamdulilah ci dara kay xanaa kay am na rek ah waaw yàlla ne ko ah waaw kon xaaral ñu peese ko am na musoon na wax laa ilaha illa allah yàlla daal di génne loolu daal di koy teg ci benn balance daal di jël registre yi teg ci balance laa ilaha illa allah daal leen di daaneel yàlla ne ko kon nag léegi da ngay dem àjjana mu ne waaye yàlla bu ma reetaan waaye bu ma bu ma mokke waaye yàlla ne ko déedéet mokkewu ma la da ngay dugg àjjana mu ne fan laa ko jële gisoo sama registre yu bëri yi yàlla mu ne da ngaa fàtte bisu sàngam place sàngam waxoon nga laa ilaha illa allah boo xam ne xaalis dafa sell ngir man moom lañ peese tey boobu daal di daaneel registre yëpp allahu akbar kon sunu borom daa bëri yërmande mbokk yi am na ci keneen koo xam ne ay bàkkaar rek la def ba mu xam ne day dee mu ragal xam ne ne safara la jëm xam na ko mu woo doom yi ne leen ban bàyyi laa ci yéen ñu ne ko bàyyi ju baax mu ne comme bàyyi ju baax laa nag damay sàkku ci yéen benn mbir boo xam ne bu ma dee ngeen koy def ñu ne ko lan mu ne bu ma dee da ngeen dajale ay mat ngeen lakk ma ba ma xëm ñu ne ko pap mu ne xam naa ko def leen rek xam naa li ma leen di wax ñu ne après mu ne ngeen bàyyi ba ma xëm ba ma nekk doomu taal ngeen def ko ñaari paan doom bi ngeen def ko ñaari paan benn paan bi ngeen sànni ko ci ngelaw li mu naaw beneen paan bi ngeen dem dugal ko ci géej gi yëngal ko mu mu dem ndax daal ragal naa dajeeg sama borom du baax loolu rek laa ragal dajeeg sama borom day ne ko waaw mu dee doom yi dajalay mat xadis baa ngi ci Buxaari taal ko ba mu tàkk ba xëm ba jeex tàkk xale yi dem yéeg ci benn montagne sànni ngelaw li sànni benn paan bi mu naaw ñu jël beneen paan bi yóbbu ci géej gi dugal seey bi ñu defee loolu rek yàlla na waa ji kun fayakun waa ji taxawaat ci kanamu yàlla ku ko moomoon ku ko bindoon mi ngi mel ne nga fotowu léegi ba pare photographe bi indi photo bi nga ne ko sama mbax ne mii de ni ma ko ci solee neexuma nga jël photo bi lakk photographe bi bu ko neexee mu indiwaat photo bi wala du ko indiwaat gars yi bu ko neexee mu indi ko wala du ko indi ah mën na ko indi wala mën ko indi bu ko neexee mu indi ci ñaata ñaata pose lu ko neex rek ndeysaan ngay lakk rek mu naan la am nga lakk ba pare mu ne am nga lakk ba pare mu faxé waat la beneen nga waaw yow kii man bu ma jëm ak moom sa kilise la denc mbokk yi ñun ñëpp suñu kilise yàlla mu ngi ko denc moo tax kenn mënut a rëcc ci yàlla wa ma antum bi mujizin kenn du rëcc nekkul fil ard wala fi sama du ci suuf du ci asmaan kenn ne kenn mënumaa rëcc moo tax mu ne man na yarda ala qadaa'i walam yasbir ala balaa'i fal yaxruj taxta samaa'i man yàlla li may def ku mu neexul samay nattu mu nga bañ ma teg la ko ah li may dogal ci yow gërëmoo ko mu ne bu la sama asamaan tiim bul dox sama kaw suuf demal beneen suuf nga jaamu fa beneen borom demal acca gaa yi nañ takk suñu bagage ñu ne dañuy dañuy dañoo mer dañuy mars génn suuf si fuñ jëm foo jaar ah pourtant saa nga xeex sa paap nga génn takk say bagage paa bi ne la fa jëm nga damay génn kër gi ma sonal danga ma sonal da ngay dem ndeysaan nga génn dem wala ñaata nit ñoo fi génn seen kër baay waaye suufu yàlla si kan moo ko mën a génn acca yëkkati sa loxo kan moo mën a dem fu la asamaan dul tiim amul kon nag nanu nekk ay jaamu yàlla yàlla li mu dogal ci nanu neex wala fi dañuy wax ne soo bëggee mucc daal combinal bëre bi soo bëggee mucc combinal bëre bi lan mooy combine bëre bi mooy xam nga ne yow yàlla yàgg-yàgg da ngay bëreeg yàlla mbër nga ngémb nga ne da ngay bëreeg yàlla te xam nga ne yow yàgg-yàgg kan mooy daanu kuy bëreeg yàlla kuy daanu benn waaye dafa ñëw ci sëriñam bi ne ko ñaanal ma dama bëgg ku ma dajal ma daan la waa ji mbër mu ngand la woon mu ne ku ma dajal rek daan la sëriñ bi ne ko loolu da yomb na daal di ubbi fenêtre bi ne ko xoolal mu xool gis armée yi mu ne ko yàgg ki daan ñii bu ngeen dajee nag kooku de moo daan ñii ñëpp te ñi mu daan ñëpp juguñ waaw kon kooku kenn mënut a bëreeg moom kon combine bëre bi mooy comme yàgg-yàgg da ngay daan nekkal rek ci li ko neex mbokk yi chaque jour bu ñu ñëwee ba sunu dars di jeex dinañ bàyyiloo xel mbokk yi ay fu ñuy jeexee sunu dars tey mu ngi jeexee fa inna allaha kaana afuwan qadira yàlla sunu borom jalla jalaaluhu wa aza kamaaluhu borom yërmande ju yaatu ci mooy baale moom borom bi an saahibil afi inama nazala qadamuhu fa yajni yadahu aw bi lisaanihi maa yastawjibu bihi kenn ku nekk ci ñun na nga yëg ne yàllaay baale jamono ji nga xam ne wàcc nga ak say tànk jamono ji nga xam ne tàllal nga say loxo wala sa làmmiñ ubbi sa gémmiñ di sàkku yërmande yàlla kon li war ci yow mooy nga sant sa borom jalla jalaaluhu borom yërmande ju yaati moom yàlla mooy jéggale mooy yërëme te ñun ay jaam lañ soxlawuñ ci kaw suuf lu dul yërmande yàlla ak njëggalam wa ma minna amul kenn ci ñun amul kenn kenn kenn kenn lu dul soxla nga yërmande yàlla soxla nga njëggalam amul kenn nag laa wax fii may wax ak yéen ku seen xel dem rek kooku moo ñu gën a soxla yërmande yàlla kooku moo ñu gën a soxla njëggalu yàlla maadaama sunu borom nee nañ jéggale leen ma jéggal leen baale leen ma baal leen kon nanu jàng loolu jéem ko def loolu mooy sunu darsu tey bu amee ay njumte maa ngi koy jégglu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu amee ay laaj tafaddal